li fi ma doon wax lépp wax nga ko waxtaanal nga nu ci Sëriñ Tuubaa waxtaanal nga nu ci xam-xam soññal nga nu it ci sunu talu bi xaw ma ko déggul de waaye fii ku fi teew te dégg te déglu jëlee nga fi loo xam ni man nga koo jariñoo sa kiir dund gi sa talu bi yaa ngi moom ku fi teew ku ne sa teewlu sa kàddu yi tedd yi nga fi yëkkati doyal nga sëkk loo xam ni man nga cee jëriñu sa giirib dund ci sag taalibe bi yokkoo nga ci yit ab xam-xam ci mooy ni nga nu ko waxee rek sa mbit mi nga njëkk a feeñal ci sunu booloo ba soññ nu ndax ñaari baat nit ñi dañ koy jaawale te bokkul mooy baatu wuute ak baatu tàqalikoo lislaam ak diine ak mbirum yàlla nangu na wuute waaye nanguwul tàqalikoo ndax ñoo bokk lu nu boole waxtasimoo bi hablillahi jamihan wala tafarraqu àndoo leen ngeen may ci buumu yàlla gi yéen ñëpp waaye bu leen tàqalikoo wuute nag nangu na ko moo tax mu ne ixtilaaful ulama rahmatun li ummati ak am naa su muxtalifuun wuute gi sama xeet yi wuute yonent bi ne yërmande la ci ñoom wuute tàqalikoo nag mooy ñu bokk fu ñu jëm boo bëggoon a xam luy tàqalikoo ak luy wuute wuute mooy ñu bokk fu ñu jëm te bokkuñ ñu jaar ñooñu tàqalikoo wuñu wuute ñun ñëpp dañoo ànd départ jóge Dakar jëm Touba waaye am ñu jaare APS bi nag jël Ila Touba bi am ñu jël route national bi am ñu jaare boori Siin am ñu ko jaare Daaru Xuddoos kenn du gis moroomam fi boo xamul da ngay defe ne dañoo tàqalikoo nekk dañoo wuute rek dañoo wuute fu nu jaar waaye ñoo bokk fu nu déparé bokk fu nu jëm bala ngaa xam ne tàqalikoo wunu ñi da yegg dëkk ba kenn ku ne dana gisaat moroomam loolu la sin dëkk defee daf noo wuutale kenn ku nekkat ak la jaaralee ki mu la booleel waaye tàqale wuut ñun ñëpp ñoo bokk fu mu jëme te ci jëm moom rek la tàqale ko nag mooy kii jëm soowu kii jëm penk ñoo ngi dul yàgg mukk de moo tax ñu bokk fun ne te wuute ca fun nekk àddina yàgg na ko jàngale réseau bii di Sonatel kat yéen xam ngeen fa nekk nekk orange moo ne bokk noonu dafa nekk nekk jamono school waa liñ teraanga yi bokk na France France simple bi bu ko defee bu message jugee waa keneen moom ko waa France mën a dem ci jot bu fekkee doonuñu ko waa keneen nit message bi nga ne waa France ko moom duñ ci jot ñu nekk liñ teraanga duñ bokk ci loolu bu ko defee nag seenu ñàkk jotante yi message bu taxee nga ne gaa yi néewul Sonatel dañuy wax rek da ngay jóg gaa yi yëpp dañoo bokkul suñu nekkee waaye dañoo wute rek mooy tàqali ko wut parce que nii nga ñu yeewaate ci loolu ba nu gën a xam ni nun taqalikoo wuñu danoo wuute wuute gi mooy kenn ku nekk ak yoon wi la jaarale ak kan la booleel waaye ñoo bokk suñu jigéen bokk suñu jëm santaat nan la ci bu baax a baax nun dañuy ay taalib jébbal gi sëriñ bi jox ko suñu bopp ab bu xasee ba jébbal du ma boppam yoon wi muy jaar sëriñ bi koy tànnal yoon wi muy jaar sëriñ bi nag yoon wi muy tànn ci moom moo liwu yoonam moom almuridu man laa yamliku shay'an wala yamlikuhu shay'un la sëñ Tuubaa wax murid moomu daraam léppam sëriñ bi la du tànn ci boppam dara wa man huwa salaabu lixtiyaari daa bokk ci sàtt min saale murid du tànnal boppam ab sëriñam moo koy tànn ab sëriñam nag bu ko tànnalee yoon wi mu ko tànnal njëriñam man te jaar ci yoon woowee damay faral di wax ni nii sëriñ bi defee boo xam ni am nga ci gàllankoor man caa am soo mënee waat ni sëriñ Béthio day defal na nu loolu ñeewuñu ko fi mu sa jaar ndax loolu ñun ñëpp dañ koy wax sëriñ Béthio lim nu defal ñeewuñu ko fi mus a jaar séddu ci mbirum yàlla koo fi jox kàddu moo ma wax ne nag ni mu defee ku mu gàllankoor ci man caa ànd soo mënee waat loolu ne defal na nu loo xam ne ñi fi mus a jaar kenn mu ne ñi fi jaaroon na la ëpp ak taalib loolu ma boole waale ko ci sëriñ Tuubaa daa jógee Mbàkke Bawal jëm Daaru Salaam ay yoon waa ngi susoo Mbàkke Kajoor jaar ca Tuubaa bi njëkk ja dem Mbacke Mbawal dem Daaru Salaam 1883 la foofu bisu àjjuma di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ginnaaw bi lëltu xajaree ci alxamis ji xëy ci àjjuma ji waaye nag bi ñu demee ba Mbawal ba Daaru Salaam ca la waxe maam Cheikh Anta ne ko ñi fi jébbaloo ci diggante Mbacke Mbawal ba Daaru Salaam dama la wàññil ma leen ca la demee wàññi leen ndax murid di Mbacke Kajoor yi bokkuñu ci murid di Tuubaa ga bokkuñu ci Mbacke Mbawal la ba Daaru Salaam leen wàññee nag ñu toll ci juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent Sëñ Tuubaa daf caa tegal ne ko soo ci boolee sa bopp nag moo tax maam Cheikh Anta dañ koo mayaale boppam loolu tax mu sant boppam lu ko neex suñ toll kenn ku nekk ci ñun li tax nu tënk la mooy ki la moomale tënk ndax moomu sa bopp moo tax ñu naan sa bakkan bu ne xamul kan la fi jógee man moomul bakkanam maam Cheikh Anta nag yow moom a ko may boppam moo tax mu sañ a rafet mu ko neex Sëñ Tuubaa dana ko soo ci boolee sa bopp mu ne ko muy muy téeméer mu ne ko rafaatale naa leen ñëpp mooy may naa leen leen gis nga juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yooyu ci sëñ Tuubaa lañ jébbalu woon sëñ Tuubaa deful maam seen anta seen jëwri seen borom la ko def da leen ko may ñooñu bëggatunu woon a gisaat sëñ saa yéen ko gisaatee maam seen anta ta fa yóbbu te deful ko jëwriñ de borom lañ ko def ma wax ni nag yow bu fekkee deful soxna si sa borom sa jëwriñ lañ ko def nga naan xam ga ne kun dénkaane ga bañ buñ ma mayoon doo dem loolu moo wér kon boo mënee waat ni ñëwuma leen cib cër waatal na ñoo ëpp dal ndax ña ne maye nga nangoo dem moom te yow nanguwul déggaan ku la maye doole moo tax sunu taalibe gi nañ koy waxtaanee lu ko mat la way na ko léegi dana yaanuy moom sëñ bee doon moom ñëpp fekk ne moonu moom ma ne waaw moom ne ko ne mën na ko wax waaye ci fexe moom la loolaa jafe mu nangul la ne la moo la moom bala problème bi ne de yaanuy moom moom du problème na ñëpp moom la ñu wax waaye bul defe ne ñëpp la seen moomeel de déedéet nangu sin bi moom la ak sin bi nangu laa moom du ndax sëriñ bi bala nangoo moom sa alal dañ ciy sañ a jëfandikoo lu la soob te doo ci tàggu kenn li nga moom loola neex nga ciy doxe li tax sëriñ bi sañul ci ñëpp doxee ci ñoom lu ko neex daa yëgul ci ñëpp moomeel boobu waaye moom sëriñ Saliou mim ne yaama moom sëriñ Saliou nangu na ko moom loolu ko sëriñ Saliou bette na ko noone ci jëmmam waaye da cay ànd exemple yi mooy koo xam ni denc nga sa soxna bëgg ko mu ne ci kër gi di waaj a nga ne ko ma siyaare ji te ñëw bàyyi ko ci kër gi mu waaj a reer bi na moo waay nga dem siyaare ji Serigne Saliou di waxtaanee moom ne la ana diw ma ne ko ma nga ci kër ga de mun la boo demee na nga ko fase suñ dégg laa la wax de bi mu yegsee ci kër gi amul négociation xoolal dale ko reer bi bakku ba jiyee mën ko jiyee bàyyi mbiri reer de yëpp te ñëw rek mu ne xam mu ko bis bi nga ñëw daa rafetul dama fonk la lool xam nga stratégie day am ma bëgg daal ñu waagalaat la nga dellu ba bis bu rafet ndax ku fonkee jëmm ni yow bis bu rafet a ciy gën mu ne ko wax te ngaa bàyyi ko déedéet bàyyi la réer yëpp yow taw rek ndax bis bu ko ci oto mu départ génn dem ba tey yoon ba mu woo ko téléphone ne ko fase naa kenn ba ne ne nattal sa bopp ci loolu bu si ko xëyee ne la fase sa soxna si bi boo gisee moo ko xam nga waxin bi yooyu eh, yëpp da nga ko lijjanti ba ba mu dëppoo ni ko bëgg yemu ca waaw ah, dama laa bëgg a wax ne la yaa amee moom moom yomb na waaye fexeel moom laa def am séen am ak moom ñeenti fan xam nga ni séet bi ruusagul am déet siyaari bi sa sëriñ di ko présenté sa gat mu xool ko jox benn nga ni sama sëriñ bii comme gaañ ñu bëggatu ma xam nga ma bëggul kenn siñ saa lu bëgg. ba nu génnee noonu la teggee moom daal di koy fase moom itam ndax suñu yëf gàññi nee na yow de sëñ bi day màpp sax laa de màpp nga naan déedéet jubluwu ci moom après maa ko la yaa moom moom yow ko waaye nu moom laa defee waaye li jëm ci ba am sa xaalis gis oto bi nga bëgg di ko dajale yii ma lay wax yëpp suñu béykat ko def di ko dajale ba am ba am oto bi jënd andil ko Serigne Saliou pour mu ñaanal ko ci Mbàkke de xéewal gi nga ma xéewalee ma bëggoon nga ñaanal mu ne ko anam mu ne ko mooy oto bee mbàkk mu ne ko sama gaareel ko ko nee oto bu mel ne la doon wër mu gaare ko ba ñëw tàllal loxoom nu ñaanal ko mu jël taxi ñibbi nati ku ne xool boppam xam nga li tax suñ toolu sañ ko moom yaa may moom jox suñ béykat wax daa yëg ni moo ko moom te li nga moom dañ koy sañ a jëfandikoo nam la neex waaye kenn ku ne xoolagul lii ma wax nag consultation bi ku ne yaa ko defal sa bopp bu fekkee yow yaa yaay wër ne lu ma am suñ bee ma ko jox te boo koy jox da nga koy da nga koy jox barkeel lu ne ngay génne joxal ko nun dañu cee bég te ko ci itam lii nga fi wax mooy li ci yow defar ak def lu baax ak di ko wax ak yéen yéen koo gis yéene ko sëriñ bi koo gis am yërmande ci moom bëgg mu jariñ ci seen bécco donc nga nag nga ànd ak ñëpp nun sëriñ bécco la ñu gëm daa am loo xam ni ba mënoon a am responsabilité bi Sëñ Saliou lay dal ku toll ni Sëñ Saliou doon lim doon bu xëyoon suba dina boole koo xam ne dañuy sànni ca ñag ba koo ko defut dara Sëñ Saliou mu ne boole moo ko def ah def leen Sëñ Béthio muy seen ku toll ni Sëñ Saliou ñëpp war xam ne am na bàcc waxuma sax naan mooy yàlla yooyu vraiment nag xalaat doomu Sëñ ma war ngaa xam ne ko mat am déet waxuma waxuma ay Sëñ Tuubaa de doomu Sëñ Tuubaa jumaa ci awul ji doomu yàlla amul ji ndax Sëñ Tuubaa leen dañuy judduwaale xam yàlla tali do xaalifa